HD euh, euh, prix bi yomb ba dee six cent euh, soixante neuf mille six cent lay jar soixante neuf moom la téléphone Infinix Hot 40 i bi di jar boo ko jëndee am nga 10 giga de connexion ñi ci soxla information yu gën a yaatu mën nañu woote ci 77 881 26 96 jaajëfal partenaires yooyu ñu doon àndal ci xalaas delluwaat ci sama waa ji santaat ko gërëm ko bu baax Ababacar. Ndiaye maa ngi bég ci yow noo def. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. toog naa lu yàgg gisuma la de. Ah. yaa ngi ci jàmm ndax xaw xaw <laughs> hmm? yàgg na de toog naa lu yàgg baal lépp a ngi kuur rek eh, xawoon naa jaaxle ndax élément bii ma bëgg indi xalaas mhm. démb laa ko bëggoon a teg waaye damaa bëgg buy jàll sénégalais yi di ko dégg mu fekk la fi maa ngi nii toog ndax waa ji da ciy wax loo xam ne xëy na ci biir yi wax dina reetaanlu eh, waaye dañ ciy mën a waxtaan nag maanaam ñu bëree bëree bëree bëri bëri mën cee jànge lan moo xew ci armoire bi xam ne voilà jërëjëf Ababacar mhm. kii jabaram day waaj a dem. dem fan. génn seen kër maanaam ñaan baat. Hmm. xam nga lu ko bëgg yóbbu. Hmm. lal ak armoire. amul ci kër gi déedéet. fu ñuy tëdd. Ah, ci suuf xanaa. seen yére fu koy denc. xanaa ci ay wëri sa te li gën a doy waar mooy moom waa ji dafa nekk ak i ci kër gi frère yi am ay soxna soxna yi am euh, chambre à coucher la waxam. Hmm. loolu nag la jabar ji teg ay bët te ci waaju explication yi li tax ma bëgguñu ñu waxtaanee ko mooy gis nga Ababacar muñalante ak doylu. surtout doylu. bu jógee ci yu bari rek problème am. Ndiaye mën na wut lal ak armoire ba tax sëyam nar a tas ba mu dem yàlla may ko lal ak armoire lal yi ak armoire yi indaale ay max-max. luy <laughs> ay max-max. max mooy ñi lekk bant max. <laughs> waaw rek doy na. waaw max. <laughs> max-max moom metti na déglu la gars yi man benn problème daal dama amoon benn problème ak sama soxna problème bi daal mën naa ne la man damay sëy sama soxna def nañ tey huit ans man ak moom am nañ ay njaboot waa moom nag instant yi moom daf ma takkal ay bot parce que nee na ma mu njëkk a sëy si kër gi te moroom am nañu lal ak armoire te moom ba léegi am lal ak armoire yi nag moom dafa taxaw fipp ne ma tànk amul lal ak armoire ak coiffeuse day génn ci sëy bi ay moom sama diggante ak moom barke alxuraan karim dara neexu ci sama diggante ak moom dara dara dara dara dara neexu ci billaahi parce que wax la dëgg tamit su ma xalaatee benn côté ndax dafa nekk ay nawleen ci biir kër gi yàlla def ñooñu sax mën naa ne seen jëkkër tànnawuñ ma parce que man am naa sama métier maa ngi doon liggéey xëy na sama liggéey moo xaw a dox doxinu kàkkatar rek loolu moo tax te sart yi dafa xaw a sama côté mhm. mais comme ñooñu noonu wax sax sa di xaawi sutura nit ki sax baaxul man bëgguma sax di wax waxul keneen mais ñooñu noonu moom dafa comprendre ne ñooñu seen yaay ñoo leen jëndal ay lal seen yaay ma maanaam jëkkëru seen jëkkër yi seen yaay jëkkër moo leen jëndal ay lal man nag sama yaay amul man maay góorgóorlu sax di li ma yàlla di suturaal daal ma ci yor sumay ak sumay rakk ak samay doom ak moom moomu nag comme xelu jigéen la te xelu xale la nañu jigéen yi baal moom xëy na loolu moo ko xaw a bëgguma lu ñaaw di am suñu diggante fu mu nekk nii kenn xamul sax dañoo am problème dañuy maslaa nii rek mais xam naa ne bés bu demee ba affaire yi gën waar moom ñëpp a koy yëg wax dëgg bëgguma kenn yëg ko billaay wallaay man nag damaa bëggoon ku ma jàppale te yàlla rek tax ma am lal ak armoire man même su xaalis sax na ma dimbal ci lal ak rek na dimbal ci lal ak day sax moom sax mu may sonal ma ay armoire buntu ñu puus yi kenn xamul am na yi ma wanoon fii photo sama téléphone mu naan yooyu la bëgg parce que yooyu nouveau modèle mais man it damay xam li ma xam rek man moom kenn du ma def loolu ma mënul te xalaatuma lépp kenn xalaatuma jël ji fi jaamu tamit ëllëg mooy jural ay problème loolu rek la ma bëggoon rek ma si jàppale te yàlla rek tax ma leen di ñaan ngir yàlla ngeen ma si parce que damaa bëgg sama soxna waaw dama see jaamu yàlla te dama am ak moom ay njaboot bëgguma samay doom ëllëg di tumuwaañ situation baa ngi noonu xëy na moom moo ñëw fii wax lu ko jabaram teg mais bari na ñoo xamante ne ji Ababacar nekkuñu ci jàmm ndax bu leen seen jabar wutloowul chambre à coucher comme nii mhm. ñu ngi leen di wutloo ay bijoux en or mhm. wala mu leen di wutloo ay téléphone portable mhm. te dara waralu gis nga ñoom ñaar ñi buñ dëkkoon ñoom ñaar kese problème du am day am kay bu ah, fekkoon ñoom kese ñoo bokk kër guñ dëkk waaw dëkkuñu ak ay frère ay jabari frère gi amul maanaam amul kuñ ciy seet mhm. lu ñu am danañ ko mën a mujj mais pression bi mi ngi jugee ci tànk waa ji waaw mu ngi ñàkk caractère ak ñàkk maanaam mën boppam ba fi mu toll nii mhm. femme bi ñàkk xel ñàkk xel gi ñàkk xel problème day am même buñ dëkkoon ci fe problème day am <laughs> femme bi nga koy laaj lal ak armoire njaay bis bu ko indee femme bi dina ko laaj ay robe da nuit ak ay fer ak ay jaljal yu mu def ci biir <laughs> maam waa ji tànk bu ngi naan noo daf koo war a am parce que ay moroomam am nañ ko li fi ay moromam am dafa bari nit ki la nga war a am ngay am langa nga warta am keneen na koy am <laughs> tànk munoo tiim sa soxna ne ko aw ma lii lii laa mën ah. bu mënee xaar loolu ba leneen di ñëw parce que fii ku fi am dara da nga ko faa xaar ah quand ah, naan ay noo papare femme bi nee na ko boo indi armoire bi fexeel ba mu nekk armoire yooyu ñuy puus mun di ñuy puus ndax moo mujjee génn <laughs> non beneen mooy xam nga imagine amagoo armoire yow ay bant sax amagoo ko xamuñu ban bois ngay am bois mopti xaw ma bois jubuti xaw ma ban bois nga yar. wala faraake femme bi ne la bois bi nay puus. <laughs> ndeysaan Ndiaye. non ñu ah, wax ki dëgg. xam nga aussi tamit euh, kenn ku nekk am nga sañ-sañ wax li nga bëgg. problème bi kay mooy bu naree ëpp nag da nga koy yemale. Ah. ndax pour lii sëy bu ci tasee. imagine toi Ababacar femme bi sëkkatal na jëkkër ji ba pexeem jeex amul nu muy def mu ñëw ci rajo pour bëgg ñu dimbale ko. moom tey bu fi nit yëkkati woon lal ak armoire may ko ñoom buñ ci tëddee dinañ nelaw ba yandoon non mën nañ am lal ak armoire nga dimbali leen waaw mais Ndiaye suba tant que femme bi mu ngi nekk femme bi dañ leen di dimbaliwaat ci leneen waa ji dina la woowaat ni la femme bi nee na daa bëgg lii non nañu muñu leen seen nekk est-ce que am na écran plat est-ce que ah, am na frigo bar maa jàpp ne ku amul lal ak armoire xëy na yooyu moom est-ce que néeg bi am na frigo bar eh, femme bi bu demee ba am lal ak armoire bu duggee ci beneen néeg fekk fa écran plat wala frigo bar Ndiaye di nga dimbaliwaat ñi <laughs> moo tax gis nga Ababacar wax nga lu am solo. te jaay femme bi amagul Infinix de. vite fait duggagul ci kër gi. demagul bijouterie la retoon maam femme bi fii ma lay wax nii yëpp demagu fa te bis amee lii leneen lay laaj. ah baax na. <laughs> en tout daal nit ki moom da ngay jàpp ci li nga am ngir muñu ko li nga amul. Hmm. moom xam nga mi ngi ci sëy am na jëkkër. mais ay moroom ngi fi amuñu sëy eh, amuñu jëkkër. waaw ah. dégguñu alxayri am déet. nit ñi di xaal yow nit ñi am lal am armoire di jooy ni ñuy fanaanoo na baax na ababacar baax na wuyu <laughs> ma xanaa bi ci topp wa ah, aba baax na eh, ñu mën a kott amuñu mbaam baax na léegi yaa mbaam ma kottkat baak yëpp baax na boo amee loolu ak armoire yow di faraan nii faraan <laughs> ah, nii nañ dem waaw baax na lan moo am fii waa ji na wax jabaram na ko muñal te ñu sàngante sutura li ñu am loolu la leen yàlla jox dëgg la doyloo dëgg la de fii ku fi dugg ñaareelu dugal ànd ak ñoo warta ànd wala ñàkk a doyloo dëgg la de kii moom gorooma ëmbal doomam muy lu doy waar. Ndiaye nag euh, gis nga xalaas. Hmm. yow da ngay xool jour yi ma gën a sonn. Hmm. pare mars démb ñu dóor ma ma ñëw toog nga indil ma xalaas ku doyluwul ñu naan déet nga ne ma kii beneen lii ay prix Ndiaye bëgg ci di ay problème ah problème addunay ah, problème yi neen la de. kii dañuy dem ba jaaxle du ñu xam fu ñu jëm. ñu ñëw xalaas doomam bu jigéen dafa feebar mu boole ko goroom mu koy faj du ko defal ay tëpp tëppal ak yooyu. nee na benn bés mu woo ko ne ko neel diw euh, mu woo ko ne ko indil diw ma sangat ko mu ne ko damaa jàpp xanaa kon mu woo ko mu mu ñëw jël si bagaas yi mu ne ko na ñëw maire bi ne ma ne doom ji demal nga jëli bagages yi nee na doom ji dem après ñëw fas kanam gi ndekete daba déglul femme bi man nag dama problème bu moom indi fii sama doom bu jigéen dafa feebaroon bi mu feebaree sama benn goro mu ne mën na faj bi ma ko yóbboo ci moom ñu di faj di faj di faj ba benn moment mu arrêté demaat dëkk ba man ma nekkoon en état bi ma accouché bi mu ñëbbee sewaatee fii mu ne ma de mu laaj ma xale bi ma ne ko bi de mu ngi fii ba tey comme d'habitude day jékki rek bopp bi da koy sonal mu man de am na garab yi ma dëkk ba ñëw naa fii léegi na ko andi ma ne ko ah, man de fan dama yorul xaalis parce que sama liggéey dafa tag dafa tag mu ne ma yàlla baax na andi ko ma ko yóbboo mu xoolaat ko mu ne ma ah garab yi ma andi mën naa ko cee faj ma ne ko waaye de man matuma xaalis bu bëri may weexale mu ne ma yàlla baax na loo am rek jox ma ma yëkkati junni ak juróomi téeméer jox ko parce que ñaar dërëm lay seete ma yëkkati junni ak juróomi a jox ko mu ne pour affaire sangar ji mu koy jox affaire yooyu. léegi mu dem léegi day jékki rek mu ooma ay onze heures onze heures et demi la may woo mu ne ma ana omi ma ne ko mu ngi fi mu ne ma na ñëw jël si garabam ma ne man de suy jël si garabam def man ma ànd ak moom mais tey jii moom dafay togg man damay fóot mu ne ma andi rek andi ko wala mu ñëw jël si ko ma ne ko demal nga jëli dem bu ñëwee xam nga fas kanam gi ma que. ki xëj na li ko dugg ni xëj na moo tax muy fis fistewu ni soit mu dima jéppi affaire yooyu ba benn moment paa bi ñibbi bi mu ñibbe ci décembre bi daje koor gi xale bi dafay am yaram toujours ma ne ko wax umi yow nit ñi di woor di tuuti yow nga woor di rëy ah yow sa affaire leer est-ce que yow yaa ngi woor affaire yooyu mu daal di mer dem ci sama yaay neko sama yaay saa yi daf may teg problème ba pare du jóge mu naan ma danga def li danga def na hmm? na ma bàyyi tu tranquille na ma bàyyi ma ne ko man du ma la bàyyi parce que ma sa yaay léegi dama affaire bi gën ma jaaxal daal ma daal koy wone ko est ce que omi yaa ngi ya yaa ngi sa mu commencé di jooy ma ne ko ah loo si jooy waxal ma man daw génn si ma nekk ma dem liggéey bi ma way wàccee liggéey man na sama yaay suba suba xëyee dama ko yóbbu hôpital parce que kii dafa changé ci suba googu ma ko war a yóbbu hôpital te la yóbbu mama nogay fi muy jàngi alxuraan après mu jaar fa dem bi mu demee nekk dafa dem hôpital ñu ne ko yow muy da nga ëmb bi mu bu ma waxee loolu ragal na ñëw ci kër gi mu daal di daw ci benn copinam bi mu demee foofu nekk fa expliqué ko problème lu mu demee mu ne ko sama maam bi def lii maa déggul wala sama maam la wax ma maam la ci moom pour man booy moo ko ëmbal maam moo ko ëmbal goromeer bi la ki ko ëmbal goromeer bi la nu mu nekkee noonu man j'ai rien compris maam la ci moom maam la ci moom mooy maanaam bu fekkente ne goromeer bi la waaw maanaam moo jur jëkkëri jëkkëri meer bi donc maam la ci xale bi la ci xale bi laa moom muy mën ëmbal ba tey <laughs> damay laajte rek maam ëmbal sët. ëmbal daa am âge. lan am na ñoo xam ne njaay am na at yoo xam ne boo fa toll mënatoo ko. ëmbal ah. sët. léegi nag bi mu demee hôpital bañ wax ko ko mu jaar kër benn xaritam ne ko sama maam nangam nangam fay. moom ëmbal moom a ëmbal. dañ ko dañ ko dañ koo kii dañoo dañoo nëbbatu waaw. Mm. fa la problème yi commencé nag. ni ay problème dina ci bi maire bi woowee waa ji paa bi paa bi ne ko gone gi amul sutura maa ko def dinaa assumer ba ne xale bi amee doom ba niñ ko opéré ñeenti junni yam leen yónnee dara toppaatu ca aba ay problème yi neen. Ah, lii lii moom mënta ñàkk problème neen neen neen fi mu nekk nii. Mhm. xale bi ku ko seetaan mu sàkkal pexe doom ji ndax amuñ luñ ko yore déglu. mu daal di daw ci benn copinam bi mu demee foofu nekk fa expliquer ko problème bi mu demee mu ne ko sama maam moo ma def li te nee na sax su ma ko waxee sama yaay di ko gëm te lii ci faj bi la bokk waaw man nag xaw na laay def léegi ñoom ñu ooma fekk wër naa fu nekk xale bi gisuma ko guddi gi nala ba ba ba sat ay 11 heures yooyu ci lañ ma oo ñu ne ma xale bi de mu ngi ci ñun waaye nag na nga ànd sa xel nga ñibbisi ñëwal ñëwal fi wakaam ma dem wakaam te bara lool jaar naa ci rakku papam laaj ko ndax gisu ko mu ne gisu ko léegi ma daal di demaat foofu mais biñ ma waxee affaire bi dama tiit ma ne ko lan loolu kay mënoo nekk am ma ne ko papa mënul nekk mu ne ma ah yow xam nga ne man borom ma ne ko mais paa bi dafa la doon faj mu ne waaw daf ma doon faj waaye nee na ci liggéey bi la bokk ma ne ko loolu kay tur liggéey di la tëddee loolu c'est pas normal léegi après ci su guddi gi ma woo paa bi ma ne ko papa jibi mu ne ma ne ko nu yoon te jàmm sante ko dafa nekk jigéen te am na lu ma wax si yow mu ne ma ummi daal amul sutura ma ne ko sutura ci la sutura sutura lan naa la mu woowaat ma ci ngoon mu ne ma ak lu ci mën a am dinaa jël sama responsabilité waaw lu ci am dinaa jël sama responsabilité te bi muy affaire bi bi muy am boobu maa ko yóbbu sama dëkk ndar pour mu am benn sama benn doomu nijaay bu muy faj foofu problème mu rab boo ko dugg nee na ba ma woowee euh, sama doomu tante boobu ma ne ko am na ku ma fa yabal na nga def très attention parce que fii kat def na fi siba mu ne ma amul benn problème parce que man su may koy faj sama njaboot gi sax damay toog ak ñoom ma ne ko d'accord léegi mu woowaan ma ci guddi gi mu ne ma lu ci am dinaa ko dinaa ci jël samay responsabilité dama bëgg rek nga suturaal ma suturaal boobu ñu koy suturaal des fois premier jour bi vingt mille la yóbbu la ma envoyé par orange money ma ko sa lëg sa ma dem ànd ak sama copine bi ñu yóbbu xale bi Annette Mbaye expliqué leen a bi nu mu pour se dire xale bi dafa doon dem daf ko dem ba di ko sànni sànni bi mooy di koy réer tey mu jaar côté bi soo mu jaar ne su ma ne ummi defal ba nangam mu lànk ba tàkk ka bakkanam xam nga jël jaxase maag sama njaboot jël écarté maag nit ñu baax ñi ma doon dimbali ñëpp mu écarté leen man def ma problème boo xam ne du ma xam sax fi mu nekk ni boo gisee mu xale bi dafa nekk ci yoonu hopital di dem di dikk xale bi nag juddu na te balaa mu juddu dafa jaar fu métti métti bi moo di dafa lakk lakk ba mu amee trente sept semaines yére bi mu soloon benn dimanche fii ci sama néeg bi néeg yaay dafa sol yére bi wan ginnaaw gaz bi di génne yére yi muy ci armoire bi yére boobu moo tàkk yaram bi yëpp lakk mu nekkoon trente sept semaine ci grossesse mu daanu fii xam ma nu ma koy def benn oto moo nekkoon fi ci kër gi noonu laa ko dugalee bi daw yóbbu ko hôpital hôpital bi kenn ku ko gis tuut ku ko gis tiit ku ko gis rek bi dafay dem buñ ne suba la tam xarit fa la nekk fa la nekk buñ tam xaritee ba sa ëllëg sa mu nekk mardi bi ci lañ ko opéré génne xale bi yóbbu ko hôpital. xalaas. fi na problème. problème bu rëy. fii am na problème li ma ci njëkk a wax mooy. Mhm. liñ ko nëpp nëppal moo bari bi yi fii xewee ñu woo ko mu nangu avoué ne moom la. nañ ko suturaal. dañu war dem ci yoon. mais dafa ñaan ñu suturaal xam nga am na gis nga boo boo tëradee mbalaanum sutura mënu laa sànq. foofu la ñu waroon a dem ci yoon. bàyyi li des ak mbiri yoon parce que fi mu ne xale bi juddu na yan condition la juddoo ki jur xale bi nee nañ dafa feebaroon dem di faju ñi amuñu lu ñu yore xale bi fan lay mujj édu c'est-à-dire éducation xale bu ndaw boobu juddu lañu ko la ñu commencé hypothéquer maanaam la ñu tayle laata kon muy muy màgg kii bu màggee xëy na yàllaa yor ñëpp mais ak ëllëgam dana doy waar mais man bëgg naa la laaj laaj boo xam ne xam naa ëllëg rek nga ciy mën a tontu hmm. mooy est-ce que mère bi mu ngi sëy ak doomu paa bi ba tey ndax toute la famille ñoom ñu ngi au courant ci li paa bi def da nga ñëw suba àjjuma suba damay ñëw kay waaw ah, boo ñëwee ma tontu la acca yaa ko wax de suba bu ma ñëw suba lii rek may indi suba <laughs> lii rek may indi man damaa bëgg ay waxi sew njaay Optique Vision Plus Sénégal établissement waa kër Serigne Touba Fall frère savon créole ñoo leen doon may seen émission xalaas